الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله mbokk نجلن دنيو دلن زيار di leen ndokkeel ci daje biñ fi dajawaat ci bërëb bii di Gorée comme nu ko al muqaddim waxee imaam Aboubacar Diankhe jazahullahu xayran ñu jëlaat benn thème benn sujet boo xam ni bu dëppoo ak xëy na suñu actualité la ñu ne nañ ci fàttalante nañ ci waxtaanaat te ñu nit loo li nga xam ne mooy suñu diine di lislaam ñu sukkandiku ci loolu pour gën a xëy na jàngat xoolaat lu aju ci wàllu jàmm ak dal ci suñu réew ak bu fekkee bëgg nañ ko yan yoon lañu war a jaar ba àgg ci te comme nu ma ko waxee li nga xam ne ci lañuy sukkandiku mooy xam-xamul islaam di xam-xamu quran ak sunna ñuy am mbégte bu baax a baax ci rek gise bi ak daje bi ñu fi dajawaat yàlla jaarale ko ci suñuy mbokk suñuy wëllëre ñu ciy tudd ku mel ne imaam Cherif Dia jazakallahu xayran mu ciy sonn lool di ci taxaw moom ak mbokk yi mu nekkal fii yëpp wax dëgg yàlla dañ leen di ñaanal yàlla yàlla dëgëral seen taxawaay barkeel seen i jéego te nangu li ñuy def ak tamit ki mu tudd léegi mooy imam Sayid li moom tamit suñu grand frère la suñu mag la daan nañ def buñ fi doon ñëw moom lañ fi doon fekk comme dafa nekk ci voyage yàlla na ko yàlla yóbbu ci jàmm indiwaat ko ci jàmm di ndokkeel tamit ak nuyu suñu mag yi nga xam ne ñoom lañ fi dajeel moo xam imaam bakar Diankhe la wala imaam Mouhamad Dieng bi nga xam ne mi ngi jóge ba Mbour ak euh, oustaz Mouhamad euh, Midio Doucouré ak ñi nga xam ak imaam Sow biñ fi doon nuyu sànq biñ doon nuyoonteel sànq imaam Ka Ba Ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar imaam Ba waaw moom laa nuyoonteel woon fii sànq dëgg la ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar balaa may tàmbalee. dafa am ku ma interpellé léegi bi may ñëw ci benn mbir bu fi am duma dugg ci détail bi mais lu may wax rek su ma mënee jox sam bopp conseil te dama koy def en public donte lii nasiha mooy loo xam ni da nga koy def sa diggante ki nga koy wax ci anam boo xam ne defar nga ci jublu loo ci yëjji nit ki wala heurté ko wala jéem a fexe xotti war maam mais comme ñun ñoo bokk li ñuy def bokk liggéey bi te li ñuy ñaan mooy yàlla nangu ko li ñuy ñaan mooy mu sell mu yemb lépp luñ ciy wax di ñaan yàlla keneen dégg ko jariñu ci ci ñun lañ ko war a njëkkee suñu bopp ci suñu yar ak suñu dal fexe ba alxuraan ak sunna bi ñuy jéem a dund bu ñu dajee ak lu xew bi am am solo ak lu nit ñi bari bari bari ñu respecté règle yi respecté teggin bi ak yar bi ci diggante góor ñi ak jigéen ñi fexe ba mooy tundiku fitnay jigéen yonent bi alayhi salaatu salaam daawul di exposé soxna yi danaan wax ne xayru sufufi rijaali awaluha wa xayru sufufi nisaai axiruha saxaaba yi daan nañ wax ne amaana loolu li tax mu ko daan wax mooy li bu'dihima an mawti'il fitna mooy ñaari bërëb yooyu ci jàkka ji ñoo gën a sori palaasu fitna góor ca kanam jigéen ca gannaaw la doon wax lu ku gën a sori sa moroom rek mu ne moo gën kenn ci صحابة إلى فهنا ينتبه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم مكث في مكانه هنا يا دلان دف بو سلم لان توكتي برب بانغا خمني فل سلم ري أبدير نيوخ نيان نتي نيوم ني كان تي صحابة يموتي وخ نيان ني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري موخ ني كنا نرى أنه إنما كان ذلك منه لتنصرف النساء قبل الرجال daraan def bu sëlmalaan toog tuuti ab diir du jóg saxaaba yi ne liñ gisoon ne moo tax mu ko daan def mooy da daan toog ngir saxaaba yi toogandook moom xaar ba jigéen ñi génn dem mu soog a jóg ki nga xamante ni bi mooy euh, Salim walla boog Naafi la du Salim ndax Naafi mooy Ibn Abdallah mais euh, Naafi moom moo wax mooy Mawla Abdallah Ibn Omar du Salim Salim moy domam ne dafa am ben bis mu génn ci ben buntu ci jàkka ji jàkkay Madina dajeeg Abdullah ibn umar Abdullah ibn umar ne ko buma la gisseti ngay tek sa tànk ci buntu bi musna fay julli di génn dajeeg yonente bi alayhi salatu salaam mun ma xaaban law tarakna hadha al lin nisa yonente bi alayhi salatu salaam ne ma ka nekhon ñu bàyyi buntu bi ak soxna yi lolu ci jàkka lako dan def ci jàkka la dan pratiquer yar bu mel non alayhi salatu wasalaam ngir xam fitna bi meuna juddo ci diggante ay góor ak ay jigen fu ñuy dajje kon bu fekke njangalem l'islam moo ñu jóg lolu dañ ko wara jëmmal ci genre jotaay yu melni mo tundi ko tuti côté folklore bi yenn xeetu way yi nga xamni ay anarchiste yo xamni taxaw di way di yàggaayu di dem gauche droite ak yu mel nonu yëfi banex rek la te fay tax jataay bi solonité bi ci waroon nekk ak sérieux bu ci nekk war a nekk day wàññeeku ndax day mujj nekk yëfi ngumbaay te ngumbaay amul solo benn nit teew fi ci lu neex yàlla moo gën junniy nit teew fi ci anam boo xamante ni yëfi folklore la te loolu moo ñu war a wutale ak ñi nga xam ne ñoom jaaruñu ci yoon alxuraan ak sunna kon ñu bàyyi xel ci buñ fii teew ci jotaay fii ne waxtaanu diine moo ñu fi indi ñu woo nit ku yëngatu ci xam-xam ku ciy góorgóorlu ku ñu am ci moom yaakaar jox ko xëy na tem woo ko ci loolu mu ñëw ci loolu kon bu ñëwee nañ fexe ba mu fekk fi loolu kon allahuma hal ballaxtu c'était pour jottali ak wax ba ñu xam ne xëy na yenn pratique yi du caaganteen da nga fay teew li muy tekki mooy danga nga koo cautionné yàlla nañ yàlla defal njub leneen li nga xam ne moom la dugg di ci sóobu mooy jëmmi waxtaanee jàmm ak dal nga xam ne dafa nekk lu fondamental ci dundu doomu aadama ndax ñenn dañ koy boole ci xaajiyaat yi am ñu koy boole ci daruriyaat yi ndax yi nit ki di soxla daf ci am loo xamante ni ay nécessité la yoo xam ne mënul ñàkk ci dundam am lu ca topp ci soxla gi ko nit ki di soxla ñu koy tuddee ay xaajiyaat am leneen lu ci toppaat ñu koy tuddee ay takmiliyaat ay daruriyaat la xaajiyaat ak takmiliyaat jam ak dal dafa bok ci li gëna nécessaire ci lo xamne doomu adama dundam fi ci kaw suuf da ko fi soxla ndax bok na ci luñu wutale ak bàyyi may moy ñun dañu nekk ay être sociable dañu dund en société te loolu liko gëna waral moy khilafa gi ñu yàlla jox bi waxé ne inni ja'ilun fil ardi khalifa mom suñu borom subhanahu wa taala mom moñu sante mom moñu bok tab bokk nome ñu jox ñu khilafatul ard هو الذي دعا لكم خلائف في الارض نحن نيب خلافه غوغو تي سوني لوس لاكو سوني بوروم تك كين كو نيك امنا رول بوتي جوي لول موتاخ مونو نيو دوندو اور سوسيتي دومو ادمه تي سوسيتي لاي دوندو سوسيتي بوني واخه موي لا انسامبل موي دوندو بي دوندو نيك دي دوندو تي بن بروب لول لا نيم سي سوسيتي ليك لول بو فكه فاو dañuy fexé ba mu nekk ci anam boo dinañ mën a taxaw ci jubluwaay yi tax suñu daje boobu am lépp lu koy yàq ñu soril ko jataay bi wala mbooloo mi te loolu mooy notion wu jàmm loolu mooy notion wu paix te loolu li koy gën a liggéey di ko gën a dëgëral ci biir la nekk ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo constituer société bi ci ñoom la loolu di jóge am na naam loo xamante ne bi mën na yàq jàmm jooju lu jóge ci biti di ñëw mais li koy fekk ñoom tamit ñoo ciy taxaw ba tax na kon mbir la boo xamante ni waxtaan ci soloom foo ko natt weesu na ko bu ñu waxee notion wu jàmm ci lislaam dañ ci namm mooy mucc gi nit ki di mucc ci lépp loo xam ne day waral ci moom ak tiit waral ci moom mu jànkoonte ak ay jafe yoo xamante ni ay naqar ak ay métit la koy jural loolu muy mucc ci li tuddee ay maxaawif yoo xamante ni da indil ay jafe-jafe loolu la ñuy tuddee am na di ko tuddee salaam nga xam salam shay salbi la Lo xamanteni day dak dindi danaka mën nga wax ni du am lu muy indi mais lu muy dak la am ay nyaka am musiba ñàkk am problème mom lañ tuddé jam kon ñak la jam mën nga wax ne ñak la mu nek ne boko xolé la nga gis ne jam joju ñaari jam la amna ci ben jam ak dal ak karange bo xamanteni mbiru xel la ci wàllu xel ak wàllu dal ak sensation bu nit ki di am ci lay jóge nit mën na nekk ci ay danger yu ko wër nekk ci ay jafe-jafe ci environnement bi muy dund ba noppi ci biir xelam mu nekk nit ku am jàmm comme tamit safaan bi mën na am mën nga gis nit koo xam ne dañ koy garde dugal ko ci ay pale nekk ci su foo xam ne sécurité yow pour nga àgg fa sax problème la mais ci biir boppam nekkul ci amul jàmm nga gis ne kon jàmm jooju dafa am yeneen mbir yoo xamante ni moo koy jur ci nit mooy def li nga war a def def lu baax li nga xam ne moom la ko war a def tàmbalee ko ci gëm yàlla ngëm yàlla bu wér ak di jëf jëf yoo xamante ni dafa dëppook ngëm yàlla boobu mooy dëppoog li neex yàlla مره يالا وخني الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون امن جوجي يالا دي وخ بنن نيفو لا تي والو كارانجي بو بوكو لك نيت كي دي تيت بو جاردي فلي ني توج بوبام ولا نيت دور كو ولا نيت كف بورتابلام جام جي يالا دي وخ گن خوت لولو بي انتيرير لا بو خامتاني نيت من ام ادونا لي تي بير تا دوتاخ مو ام motax yalla jaglel ko ñooñu bo gisé yonent bi alayhi salatu wasallam lim doon wax nan as sidqu tumanina wal kadibu riba fofu comportement la wax bu nit ki di am bu koy jural tumanina moy dal stabilité paix intérieure am rahatu an nafs wal qalb ak benen attitude ak comportement bo xam ni jiixi jaaxa la koy indil instabilité la koy indil moy al kadhib moy lépp luñu tabax ci lu deug lépp luñu tabax ci lu deug lépp lu faux bu ci nit ki dundam mënu jural jàmm joju non jàmm joju ci kaw deug rek lay tabax motax mu don wax ne da'ma yaribuk ila ma la yaribuk al sidq tumanina wal kadhib riba alayhi salatu wassalam benen jàmm bi moy jàmm bi nga xamanteni jamm jàmmi yaram la jàmmi beurep bi nit ki di dund la yàlla subhanahu wa taala tuddaat ko bimu waxe ne awalam yaraw anna jaalna haraman آمنا يتخف يتخطف الناس من حولهم bi mu ne jacal naa xaraman aminan ndax ñoom gisuñu ne dañoo def bërëb boo xamante ni ñun ñoo ko ñekk aar ko te mooy alxaram almakki la ci namm bu ñu waxee alxaram ci jumaa ji lay tàmbalee mais am na périmètre bu ko wër bu rëy boo xam ni yàlla da koo ñekk def ko mu nekk lu sacré loo xam ni yenn ci xeetu jëf yi yenn transgression yi kenn waru ko fa def mu ne jaxal naa xaraman ne aminan yàlla melal ko melokaanu am na muy mu nekk loo xam ne dafa am kaaraange ba pare ne yu tax yu taxattafu naasu min xawlihim mu ne jamono jooju ñoom ñu nekk ci xaram boobu di am benn sensation de sécurité et de paix ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biti xaram boobu ci yeneen réew ci yeneen i dëkk ñoom jamono jooju ñu ngi leen di salfaañe di leen teg ay musiba di leen teg ay fitna mu def lu ñu tuddee muqaabala dafa def muqaabala bay na am na bi mu wax ci alxaram ak yu taxattafu naasu min xawlihim ñu déggee ci ne kon am na bii muy wax mooy am na boo xamante ni daf lay protéger daf lay aar ci liy dal ñeneen ñi muy kon sa bërëb bi nga nekk espace bi nga nekk occupé ko mu am sécurité loolu la ci nam beneen ñaaru sécurité boobu ak kaaraange boobu mooy bi nga xamante ni bu biti la xëy na waxtaan bi ci boobu la gën a jëm ndax beneen bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee ci wàllu pas-pas ak pas-pas bu sell bu set ngëm yàlla ak la ci aju ak li muy jural nit ki ci jàmm jooju nga xam ne jàmmi bàkkan la loolu xëy na ci beneen jataay insha allah mais comme nu ko imaam waxee léegi ci contexte bu ñuy dund ak tension yi ñuy dund xëy na nit ki di wax bu ñu dégloo lislaam moom ban yoon la leen di wan pour ñu xam fan mooy yoonu jàmm ndax wallahu yad'u ila daari salaam yàlla moom mooy woote di jëmale ci kërub jàmm kon bu ñu bëggee jàmm nañ ko laaj waa lislaam li nga xam ne moom mooy jàmm ak kaaraange sàmm ko ba mu bañ a yàqu dafa nekk benn jubluwaay bu màgg ci lislaam nekk warugar bu màgg boo xam ne dañ cee war a taxaw ndax munta ñàkk ndax bu jàmm ak kaaraange ñàkkee lu bari ci ay jubluwaay yu lislaam am dafay yàqu loolu moo tax lislaam ñëw indi sécurité boobu notion sécurité bi mu ñëwee daf koo jëmale ci ay mbir yoo xam ne léeg-léeg borom xam tudd juróom benn léeg-léeg ñenn ñi tudd juróom ñaar léeg-léeg ñenn juróom ñu koy tuddee al maqasidul kubra te loolu mooy sàmm bakkanu doomu aadama te loolu moo indi al qisaas walakum fi l qisaasi xayaatun yaa ulil bu lislaam ne ku rey ñu rey ko lislaam ñoŋal bakkan araamal képp ku koy rey wala nga koy lor c'était pour sam jam bakkan benen bi ci dess moy diine man badala diinahu faqtuluhu diine foog ñu sam ko protéger ko ba nit ñi baña jël seeni xalaat yu yu gattañ lu lool ak yu suufe lool di fowé diine diko yàq ndax doomu adama bu diine yàqoo ci mom nekkam fi ci kaw suuf amatul ben sens benen bi ci dess moy xelu doomu adama te loolu mom mo indi innamal alxamru wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu mooy sàmm xelu doomu aadama ndax doomu aadama boo ca xel ma jógee dara desatu ca ñëw sàmm njur sàmm biiru jigéen sàmm ni nga xamante ni ci la ñuy juree loolu dafa nekk loo xamante ni lu sacré la ci lislaam ndax dugal ci loxo mooy menacer suñu existence ak cër bi ñu yàlla joxoon fii te loolu mooy utale lislaam ak li ñuy gis ci civilisation occidentale bu matérialiste bi nga xam ni moom dafa jàpp ne doomu aadama benn jumtuwaay la rek maanaam dafa chosifier la vie alors que l'islam dafa sacraliser la vie ñoom dañ jàpp ne dund benn jumtuwaay la rek bu ñuy jëfandikoo loolu moo tax ñuy indi ay mbir yu bëri yoo xamante ni boo ko seetloo dafay menacer suñu nekkin ci ni ñuy foowee li nga xamante ni moom mooy wàllu njur l'islam tamit protéger li nga xam ne mooy deru doomu aadama mooy honneur am ba tax mu wax ne ku waxal nit lu amul tuumaal ko lu amul bu amul ay seede nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar ndax jàpp ne nit ñi seeni honneur li ñu tuddee al ird al ird dañ naan mahallun fi l insaan ida dukira bil jamili yakunu madhan wa ida dukira bi al qabixi yakunu qadhan léegi mooy loo xam ne ci nit boo ko tuddee ci lu rafet mu nekk aw tagg boo ko tuddee ci lu ñaaw mu nekk xas loolu dañ koy sàmmal nit ku nekk am na ñeneen ñu siy dolliwaat yeneen yoo xamante ak timit alal almal alal wala tuutu sufahaa amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaaman la wax qiyaaman seen dund ci li aju moy alal bu leen ko fowe bu ko nit ki moomee sax te di ko jëfandikoo nu baaxul lislaam ne nañ ko nangu dencal ko te loolu mooy alxajr moo tax mu wala tuutu sufahaa amwaalakum as safih mooy man laa yuxsinu tasarruf fi lmaal koo xam ne ni alal baaxul mu ne bu ko yoree ngeen gis ko mu koy yàq bu leen ko seetaan ndax alal ji cër seen dund sukkandiku bu ko yàqee dina répercuté wu ci yéen kon téye leen ko lu mu soxla ngeen jox ko ko loolu di wane importance su alal ci l'islam nga gis ne kon loolu mooy dëgg-dëgg mission bi tax l'islam di dox si l'islam looloo ko indi am nañu ci doole alxurriya am na ñeneen ci doole alxurriya muy liberté l'islam dafa nekk diine joo xam ne day woote ci liberté ci déggin bi nga xamni mom la ko yàlla jox pas déggin biko civilisation occidentale bi jox civilisation occidentale bi notion biñ am ci liberté baxul dafa erroné liberté moy bàyyi mal doomu adama bàyyi mal doomu adama tekkiwul liberté dedet liberté benen déggin la am bu bokk nak li te moy choix biñu yàlla jox rek ne wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa fal yakfur laa ikraha fi ddiini qad tabayana rushdu min al ghayy léegi loolu nekk ay mbir yoo xam ne lislaam dafa ñëw di dox ngir sàmmal ko nit ñi kon bu fekkee lépp loo xam ne day gàllankoor yooyu dafa nar a jug jëm si si nit ñi lislaam da koy fekk te différence su lislaam ak système yi fi doomu aadama yi fent di ko fi indi mooy lislaam dafay jiitu xew-xew yi lislaam dafay jiitu xew-xew yi maanaa li muy li muy waajal lu ñëwagul la dalay jox ay yoon yoo xam ni boo ci jaaree fitna du dal sa kaw yeneen yoon yi doomu aadama yi di tëral dañuy xaar ba fitna dal sa kaw ñu lay utal ay yoon yu la ci génne loolu moo tax des fois ñu bëri du ñu mën a comprendre mesures yi l'islam di jël ak atte yi l'islam di tëral ndax dañ koy xool ci teew mi teew te duñ ko xool ci lay ñëw liñ tuddee an nazar ila al maalat wal awaqib bi al imam bi di wax ne mu'tabarun shar'an mooy xool li nga xamante ni mooy finalité wu jëf yi ak fa nga xamanteni bi fa lay mujjé ji ci li ngay def tay ni ëlëk lu mu lay jural l'islam mom fofu lay xolé li suma ko bayilé nit ñi bay bayal ko ëlëk lu muy jur loolu la l'islam di xol pour atte ko tey laata ëlëk di ñëw doomu aadama mi xelam gàtt nak da koy xol tay atte ko tay ne ci ba fitna wi ñëw ne xëss ci kaw muy soog sigi xamne xam ndakate lim nekkon baaxul loolu rek mooy gàttu gis-gisu doomu aadama loolu mooy gis ngay gis différence bi nekk diggante l'islam ak doomu aadama bi xalaat di tëral mooy notion bi ma doon wax sànq ci liberté ci jàpp ne ki naan la bul naan sàngara ngir xool séquelles yi muy def ci sa yaram ak lim lay jural ci li muy yàq ci sa xel def loola ko ci ay fitna ak ay ñaawteef moom loolu la xool mu gis ne loolu doo ko comparé ak bànneex bi ngay tudde bànneex yow di ko yëg mu ne la kon bàyyil jaru ko ismuhuma akbaru min nafihima jaru ko légui kële mom day ñëw ne la bàyyi lolo ka lolo ay contrainte la dañ lay xëñ sa liberté mo lay won notion wu liberté boobu nga xal mom la naxé nit ñi te loolu ci seytaane la juggé mu bokkat ci timit ne jàmm joju ak karangé gogou xéewal lako l'islam jàppe li ila fi quraish ila fihim rihlat ash chitaai was sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yàlla da fay def imtinan di tuddal waa màkk xéewal yi mu leen defal mu wax ne yàlla moo leen may ñu am lu ñu lekk ba xiifuñu waaye yàlla moo leen defal ñu am jàmm ba tiituñu loolu di wane ne kon jàmm jooju nga xam ne moo lay fegal lu lay tiital loolu bokk na ci xéewalu yàlla yi gën a màgg xéewal nag bu la ko yàlla joxee da koy sàmm da koy sàmm te li lay pousse ci nga sàmm ko mooy nga xam ay njariñu xéewal gi ndax nit léeg-léeg mu yor xéewal gu rëy

comme lu ko imaam waxee léegi ci jàmm ngay jàmmoo yàlla ci jàmm yooyu noonu nit ki xalaat ci taxaw ci loolu xam ne kon jàmm ji mun mënta ñàkk waaye mu xool tamit ci yàqute yi safaanu jàmm ak safaanu dal ak safaanu kaaraange ci li muy jural nit ki ci fitna ak coono bu fekkee nit ki xalaat na ci loolu xool ci bu baax a baax dina tax mu gën a sàmm li nga xamante ni mooy jàmm jo suñu borom subhanahu wa taala jox ci loolu bu ñu xoolee li nga xam ne mooy yi jàmm di jur ci njariñ yu bari la rawatina ci luy defar suñu dund di ko yëwanal di ko soqali bokk na ci liñ ciy tudd mooy taxawu diine ak yëwanal diine suñu diine ak yëwanal suñu àdduna ñu ngi koy mën a def su fekkee dañ koo tal su fekkee dañoo nekk ci jàmm xoolal li suñu borom subhanahu wa di wax naan xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qaanitin lan la ci def ne fa in xiftum fa rijalan aw rukbaana fa ida amintum fadkuru llaha kama allamakum ma lam takunu taalamun maanaam yàlla bi mu ñuy sant naan ñu ñu julli nga xam ne mooy jaamu yàlla bi gën a foor bi gën a màgg sant ñu ñu taxawu ko def ko ci anam ba gën a mat ci waxtu ba ko yàlla waral daf ne bu fekkee dañoo nekk ci tiit dañoo nekk ci jamono joo xam ne nekkuñu ci jàmm bu boobaa fitna am na mu ne julli ga sax boo dee dox wala ngay daw wala nga war jullil na ko mu ne kon jaamu yàlla sax ga nga daan def ci sa sago talatuloo ko ba ca gën a ba ca gën a rëy gën caa màgg nga xam ne mënoo koo ñàkk a def sax defatoo ko ak sa sago danga koy def rek ngir mu wàcc la danga koy def ngir ñàkk koo bañ koo ñàkk a def fa rijaalan aw rukbaanan yaa ngi war yaa ngi nekk ci front bi di daw noonu yaa ngi sax ginnaaw boo taxawee ñu dab la nga nekk ci di allahu akbar sami allahu liman hamida xam nga loolu du sago moo tax kon ndakate jaamu yàlla sax balaa moo mat nit ki dafay nekk ci dal nekk ci jàmm kon luy luy wane ne ñàkk jàmm day wàññi diine ndax lu bari ci li nga mënoon ci sa diine ak li nga ko mënoon taxawee dootoo ko mënati noon tamit lay def ci wàllu àdduna kon taxaw ci yëwanal suñu diine ak suñu àdduna yépp day fekk ñu tal ku fekk ñu nekk ci jamonoy jàmm naka noonu tamit taxaw ci li ñu war suñu diggante ak suñu askan ak suñu réew ba mën koo suqali mu naat balaa nga koy tal day fekk nga nekk ci jàmm ndax lu bari ci loo war a def ci ay taxawaay yu ñu war a am ay initiative yu ñu war a jël ak nu ñu war a xalaatee ci liggéeyal sa réew ba réew ma di mën a tegu ci yoon bu ko jëmale ca kanam day fekk askan wa tal ko day fekk askan wa nekk ci jàmm te loolu boo seetloo ci alquran dinañ ci ñëw bu suñu borom subhanahu wa taala di wax ne awalam numakkin lahum fi waxul awalam najal awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay bi yàlla di waxat wa màkka haram bam len defal mu nek fu yàlla ar mu am karange am jam daf ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay mu melne lolu résultat la ci jàmm jafa am lu bax ci aduna bi ñu indil len ko jam fa am moo tax ku yor lu baax sa xel dem fa bu fa jàmm amul woon ku yor lu baax feneen ngay dem kon pour soqali ko am faw jàmm ne fa way laa kenn du fa ñëw naka noonu ñàkk jàmm ji dafay indi xëy na li nga xam ne mooy désordre ci nu ñu war a gérer askan nu ñu war a gérer réew mi wàllu administration ak lépp lu koy doxal daf ciy indi benn anarchie daal di koy yàq ba nga xamante ni ay comportement yu baaxul yuy delloo réew ginnaaw rek mooy daal di commencé di màgg ci askan woowu ci mel ne wàllu ger enrichissement illicite ak yu bari ci ay doxalin yoo xam ni baaxul bu jàmm amul ci bërëb rek da ngay gis ne yooyu dafay tàmbali di jëm ci kanam di am doole loolu ci askan woowu mu bokkaat ci ba léegi mooy cadre yi nga xam ni am nañ xam-xam am mën-mën ci soqali réew jariñ réew mi bu fi fitna nekkee jàmm amul gisatuñ seen bopp ci yëf yi ni muy doxee li ci ëpp dañuy génn dem liñ ñu tuddee fuite de cerveau la fuite de mémoire te am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi toog di xaar ñoom bu ñu déggee ni conflit am na rek ñi ngi pare pour ubbi seen i buntu récupérer ñooñu xam nañ leen moo tax boo xoolee zone de crise yi am ci àdduna bi yëpp li ci ëpp occidentaux yi dañuy dem sélectionner seen borom xam-xam ya fa nekkoon yóbbu leen boo xoolee crise u Irak bi ak bu Syrie bi ci révolution yi fa amoon ay centaines de millier ci seen i xale seen i ndaw yoo xam ne très bien formés ay ingénieurs ay docteurs ñoom ñoo fa jóge daw ndax fitna ba fa nekk dem Europe biñ demee Allemagne yi gëmewuñ leen ci jamono Angela Merkel daf leen ubbil ay buntam jël leen jox leen ay papier ndax xam na liñ ko mën a jariñ ndax seen réew leen jàngal seen réew leen yar ba ñu toll ci liggéey ci am xam-xam ñu ne ko ñu ngi nii mu mel ne kado bu ñu ko jox ci plat gëmeewu leen mu jël leen. ndax ñom dañ am problème croissance démographique seeni nit matuñu pour mëna a liggéey seen réew mu bokkaat ci tamit li nga xam ne lay jur moy déplacement bi wara mëna am ak circulation bi wara am ci alal ji nga xam ne mooy nekk ci réew mi di circuler bu fekkee jamm amul dootul am ndax lu bari ci alal ji fi nekkoon ay nit dañ koy tibb daw dem làq ci ko bitim réew ndax dañ naan réew mi wóorul du ma fi bàyyi sama alal wala nit ki jël ko denc ko biir këram alal ji dootu circuler da ngay jékki-jékki dootoo gis xaalis bu ko defee loolu freiné économie dëkk bi nit ñi commencé nekk ci ay jafe-jafe yu méttee méttee métti ña nekk ci biti timit sax yor seen alal nekk ay investisseur yuy ñëw di créer entreprise di créer li ñu tuddee richesse di dugal seen alal ci réew muy soqali li nga xamante ni mooy réew ma dañuy téye seen alal dem xooli ji yeneen réew yu am jàmm ndax ñoom critères yi ñuy xool ci réew pour dem yóbbu fa seen i capitaux investir ko fa bokk nañ ci gën a am solo mu am stabilité am jàmm am li nga xam ne mooy kaaraange mu bokk ne li nga xamante ni moom la ñuy mujjee ci loolu mooy ne ñàkk am jàmm pëccëxoo lay indi ci réew indi ak xàjjalikoo ak fissure ci suñu ànd gi ñuy ànd en tant que benn nation nation boo xam dañ naan ñun ay sénégalais lañ loolu moo ñu boole yow xeet sàngam ga kii xeet sàngam la kii ci diine sàngam kii ci diine sàngam mais ñun ñëpp sénégalais lañ même nationalité lañ yor loolu moo ñu boole woon léegi léeg ñàkk jàmm day xotti loolu ndax ay fissure lay indi suñu diggante yoo xam ni soo moytuwul après loolu pour mu mën a melaat na meloon soo moytuwul dinañ dundaat lu yàgg yàgg yàgg balaa loolu di dellusiwaat te loolu lu doy waar la ci réew bu fekkee am na fa. yonent bi alayhi salaatu salaam don wax lo xamne day woné li nga xamanteni mom lañ don wax lépp daf ko teunk ci ben hadith muné man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qut yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad dunya yaronte bi alayhi salatu dafa wax ne nit bu xeye am wér-gi-yaram ci yaramam te ñak jàmm day xañ nit wér-gi-yaram amato fo fajo te fitna ga li muy jur ci ay dégâts ak ay ravages ci yaram yi nit ñi kenn xamul nu mu toll ndax bu ñu waxee ñàkk am jàmm rek mooy yaram yi ñu ngi souffrir kon muafan fi jasadihi aminan fi sirbihi nekk ku am kaaraange fa mu dëkk am fa jàmm indahu quutu yawmihi am lu mu mën a lekk li koy jur mooy nit ñi am tal ak ak sago bu ñu mën a produire lu nit ñi mën a dundee fu jàmm amul fitna day daal di am ci wàllu dund ak wàllu lekk mu ne ñett yooyu bu dajoowee dafa mel ne nit ki ñàkkatul dara ci àdduna boole nañ ko àdduna yépp kon yi ñu wax lépp ci njariñu jàmm doon ko lim yonente bi alayhi salaam daf ko tënk ci xadis boobu bu fekkee seetlu nga ko yi nga xam ne moo koy sàmm di ko jañax mu jëm ca kanam ñu war koo xam te boo ko xamee xam ne safaan ba mooy yàq jàmm bu ñu neexoon ñu ne yi yàq jàmm waaye dañ koy wax ci yi nga xam ni dañ koy wax ci façon boo xamante ni ijaabi la dafa nekk lu positif mais nekkul lu négatif ci côté boobu lañ koy waxee ngir mu nekk ñaax bu ñuy ñaax ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun ngir mu góorgóorlu ci loolu yi nga xamante ni mooy indi jàmm ci suñuy askan ak suñuy réew comme dañu wax ne dañuy tënk waxtaan bi pour ñu njëkkalante ak waxtu wi tuuti bokk na ci wala nga ne bi ci njëkk mooy apprécier jàmm ak kaaraange à sa juste valeur mooy nga jox ko dayoom xam dëgg dëgg dëgg dëgg njariñu jàmm bu nit ki amee jàmm xam dëgg-dëgg li ñu doon wax sànq ci ne lii xéewal la suñu xéewal gi ñu am di jàmm nañ ko sàmm ba kenn bañ ko yàq di ko wax noonu di ko fàttali bari wane ne lii lu précieux la surtout ci ci jamono bi ñu nekk loolu bu ko defee dinañu dimbali ci ñu góorgóorlu ba bañ koo foowee muy yàqu ngir suñu problème bopp xataada ibnu diama as-sadusi daf doon wax ne wa aymullahi لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل جيل من الناس كثير ولا العقل فيها جيل من الناس كثير قتال دا وخ بن وخ جو ام جو ابو نعيم سولو جله كو تي حليه الاولياء من بو فيكونتي نيت ني بولين فتنه دالي با سونال لين با ني سون باي بغا دي موي اي لسون جانغي اي لسون ba xam fitna bi ci nekk ak yàqute yi ci nekk ak jo jóge ci mu terroriser leen ba ñu ragal ko mu ne bu fekkonte ni noonu la ñuy mel buñ ko séenee muy ñëw mu ne kon ñu bëri du ñu def luy jur fitna mais des fois nit ki bu ko séenee muy ñëw day jàpp ne mën na koo dékku moom sax soo moytul moo koy encouragé di def lu koy gën a indi waaye bu ñëwee ba salfaañe ko ba def li muy def ba def mëninam bu jàllee nit ki soo a xam dëgg dëgg dëgg lan mooy dayoo fitna لول لا قتاده ابن دعامه السدوسي واخ مو بوكات سي كوي دغرال جام موي كين كو نيك سي نيغا خامني ньо بوغ جام جوجو ام تخاواي بو خامني داي جور جام ام تخاواي بو خامني بو ريسبونسابل لا ام تخاواي بو خامنتاني ليم تي خول موي لانتير كومون موي نجاري اسكان لاي خول سي سما دوخالين سي سما جوك اك سما توك ليپ لو ماي ديف نجاري اسكان لا تي خول té lool nek luñu l'islam yar لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه مجيخ تاك كين تي يين دو گم لي فك بگالول مبوكم بگالول اي مبوكم لوم بگال بوبام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يامن جاره بوائقه كين كو نيك فخه با نيك كوي جارين تي تي سا لورانغي تي ساي ييب اكت يو خن يانكوي بوزي نغا فخه با بول لور bu fekkente ni nit ñi góor góor nañ ba kenn ku nekk tàmbale ko ci sa bopp loolu mën na jëmmal jàmm mën na may jàmm doole mais bu dee suñuy intérêt personnel léeg-léeg mooy primé moom la ñuy jël may ko doole suñuy njariñil bopp la ñuy may doole ci njariñu suñu askan ak suñu ànd loolu fa la menacé jàmm tàmbale moo tax taxawaay boobu noonu pour mu mën a nekk lu am njariñ dafa war a ànd ak dëggu ànd ak nekk ñu wóor ba noppi tamit ànd ak ne lépp lu ñuy def kenn ku nekk ci ñun ngir askan wi mu def ko ci anam ba gën a rafet إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يحسنه نعم يا الله سبحانه وتعالى دفا بغ سي نون بني ديف دارا ني رافيتال كو ديف كو بيرفيكسيون لول لا الاسلام يار إن الله كتب الإحسان على كل شيء ولا في كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة الإسلام لم يير موي لب لو ني ديف دنج كوي رافيتال رواتنا لو خامتاني دفا لامبو اك اسكان اسكانو لم mu bokkaat ci yar nit ñi ci fonk seen askan fonk seen réew pas bëgg seen réew ndax bëgg réew lañuy faral di tekkee patriotisme man dama gis ne patriotisme li ko war a gën a tekkee du bëgg sa askan ndax nit considération yi tax mu bëgg dara lu bari la te nit mën naa bëgg askanam ngir ay considération yoo xam ne du ko dimbali ci mu fonk askanam fonk réewam waaye yar nit ñi ci patriotisme mooy fonk seen réew ci di def lépp loo xam ne da koy jëmale ci kanam waaye moytandiku lépp loo xam ne da koy delloo ginnaaw te loolu mooy fonk sa askan ñu fexe loolu ñu jëm koo ji ci nit ñi yar ko ci nit ñi ba nga xamante ne dafay nekk ci ñoom comme ni nga xamante ne noonu la ko yeneen réew yi di defee ñu ma ci faral di jox exemple mooy américain yi seen drapeau fu ñu toll fu ñu tollu da ngay gis ñu yoroo drapeau parce que li muy symboliser ci ñoom fierté la ci ñoom mooy États-Unis wane ne fierté la ci ma bokk ci réew mu mel nii fexe ba lu ñuy def lu ñuy def rek dangay gis dañuy indi seen armee mu ñëw taxaw indi drapeau bi chanter seen hymne def yoo xamante ni loolu yëpp pour lan pour def ci nit ñi fibre patriotique muy bëgg ba nit ñi nekk ay patriotes yoo xam ni seen réew fi ñu nekk dañ koy bëgg ba mu jaral leen ndax nit ñi faw loolu nekk ci ñoom nekk goo xam ne mooy tax ñu yëwanal seen askan yëwanal seen réew ndax boo mënta soppi réew da ngay soppi sa réew boo mënta soppi sa réew nga soppi sa nekkin ci sa réew bu yàggee sa réew dina soppeeku. loolu la nit ku nekk di war a góor góorgóorlu si ñun def ko mooy sa bopp nga koy tàmbalee ndax boo ne soppi sa réew léeg-léeg li ñu ci nam mooy soppi ñeneen ñi boo mënta soppi ñeneen ñi nga góorgóorlu soppi sa bopp yow mel ni nga war a mel bu yàggee yàlla mën na def loolu dem ba soppi li nga xamante ne bi moom mooy sa réew kon patriotisme boobu nga xam ne moo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu jógee Màkka ñëw Madina saxaaba yi di jàmbat métitu Madina ak tàngoor wa ak mbooyo ma fa nekk seen bopp yi di métti mu a yow yàlla may ñu ñu bëgg Madina comme ni ñu bëggee Màkka wala nu ko raw mu ne màkk moo gën madina waaye comme fii nga ñu nattoo ñu dëkk fi defal ñu ñu bëgg ko bëgg gu raw màkk kon fi nga dëkk da nga koy bëgg fonk ko loolu dafa war a nekk ci nit loolu moo tax yonente bi alayhi salatu salaam doon leen ñaanal loolu mu bokkaat ci tamit ba léegi ci koy dëgëral mooy lépp ci mbir yoo xamante ni ay facteur d'instabilité la yi nga xam ne mooy indi ñàkk jàmm ñu fexe ba loolu ñu jéem a fexe éradiquer ko ñu xeex ko ci kenn ku nekk ci sa niveau individuel wala ci mbollem rew mi yëpp fexe ba kenn bañu encourager lenn lo xam xamnañ ni li ëlëk mën na fee jur fitna ñuy fexe di anticiper comme lima ko waxé won ci doxalinu l'islam dafa am ben mabda ci l'islam bu tuddu saddu dharia dang koy fekk ci alquran al imam ibn ibn al qayyim ligéy na ci ligéy bu am solo ci i'lamul muwaqqiin indi ci lu mat 90 règles yo xam da koy jël ci alquran ak sunna ndax ni ko l'islam fonké règle bobu mooy anticiper anticiper lu ñëwagul loolu ci niñ koy defee mooy góorgóorlu fexe ba xeex jikko yu ñaaw yi nga xam ne ñu ngi koy seetlu ci suñu jeunesse bi ñaawteefu jikko yi yàqu jikko yi loolu noonu bokk na ci li gën a menacer suñu jàmm fii ci réew mi delloo si waat valeurs yi fexe ba ndaw ñi ñu yaraat leen ci ay jikko yu baax sàmm seen jikko yu rafet yi nga xam ne mi ngi yàqu guddi ak bëccëg ndax jikko yi bu yàqoo loolu mooy def ci ñoom benn audace lu ñu tuddee jura ci lépp loo xam ne yëfi violence la ndax inna mimma adraka annaasu min kalaami nubuwati l ula ida lam tastahi fasna ma chita nit koo xamante ni bi moom ci jaman foutisme lay dox parce que amul lu muy xool amul ay valeur ñu mel noonu bu ñu bëree ci réew mën nañ koo taal sans problème ndax amuñu benn conscience te loolu boo ko xoolee ci benn jeunesse bi lu mel ne États-Unis bi ma doon wax léegi malgré li ñu am am ci ay moyens xoolal seen li ñu tuddee xóot ñoom xóot lañ koy tuddee seen ghetto yi nga xamante ni da gis xale boo am 17 ans mën a rey nit nit nit fële ñëw toog fii di waxtaan ak ay moroomam taal cigarette am di tux xale bu am da ngay gis benn enquête xale bu am 17 ans wala 15 ans rey nit ñëw toog police di ko enquête muy wax di yëngal bopp bi di wax ci façon boo xam ne dangay xam ne kii li mu def yëngalu ko def na ko mais dafa mel ne sax yëgu ko naka la nit mën jëlé bakkanu nit ak numu foré ci xale xale bo xamné man nekagul sax majeur ba nopi mën am dal gu mel ni nga xamné raf sax duko def lélé police yi mën nañ ko entendre buñu gisul ay indice ci mën nañ sax jàpp ne ki innocent la ndax dal gi ñi gis ci mom jeunesse bu mel nonu ay monstre lañ te lolu nañ ci bàyyi xel bu baaxa baax benen bi ci dess moy lépp lu jëm ci walu lu yak xel ñu bañ koy favoriser muy tasti ci suñu réew na ci milieu jeunesse bi ci walu xétu sàngara ak ay drogue yoo xam ne da leen di tàggale tàggale ak seen sago ba pare di leen may fit ci loo xam nit ku lucide ànd ak sa sago doo ko def te fi mu nekk sàngara tasaaroo na fi lool lool lool lool ba tax na bu dee dañuy wax ne bëgg nañ jàmm nañu bàyyi xel ci yooyu ñuy seetaan yenn xalaat yenn idéologie yu baaxul yi ñuy dégg jékki-jékki yenn xeetu woote yi fii tàbbi ay nit nekk ci muy constituer ay secte ñu am yenn croyance yu ñuy gëm yoo xam ne neexul a contrôler du ci diine du ci àdduna xamoo noo koy mën a contrôler ñu koy bàyyi muy tasaaroo jeunes ñi di dem di ci dugg loolu mën na dem ba ëllëg mu jur fi ay fitna. beneen bi ci des mooy milice yi nga xam ne dañ ko fiy gis ay milice privé ñu koy bàyyi da ngay am nekk kilifa rek am sa garam bu bu rëy ut say jeunes tàggat leen jox leen ay arm di leen yebal ñuy exécuter ay ordre état bi toog di ko seetaan léegi ëllëg buñ ko buñ leen joxe ordre yoo xam ne ci kaw ay nit la jëm nag ak seeni alal. kan mo leen di défendre kan mo leen di protéger bu ñu jógee di dal ci ay nit di leen bundu xatal di bu ay moyens yu ñu défendre seen bopp lu muy jur beneen bi ci des mooy bu état bi ne wax def force de l'ordre jox leen ordre ñoom ñële nekk milice seen kilifa jox leen ordre yu safaanook bu état bi léegi boobaa lu yam léegi bu état bi faiblesse lay doon ci moom menacer remettre en question li nga xam ne mooy autorité am te loolu baaxul ci réew ndax day créer li ñu tuddee anarchie lay indi désordre lay indi kon yooyu yu ñu mën a lim la rek ci taxawaay yooyu nga xam ne kenn ku nekk suñu war na ci bàyyi xel mu bokkaat ci góor góorgóorlu suñu kéemtalaay kàttan pour améliorer suñu nekkin gën a yëwanal nekkin bi nit ñi vraiment di dund ci situation wala ci anam boo xam ne daal dund dina gën a jàppandi ci ñoom dund gi dina gën a yomb ci moom yo dina gën a yomb ci ñoom alléger tuuti seen i souffrance te loolu xëy na bu ñu ko waxee ñun ñëpp am nañ ci part de responsabilité ndax xel yi ci li muy jëm mooy ci état bi mais prix yi léegi boo ko seetloo lu ci bëri suñuy loxo la gën a nekk état bi ndax état bi daanaka maîtriser tu ko yërëmante wuñ suñu biir ku ci commerce li ngay xalaat mooy yokk rek yokk yokk yokk yokk yokk bu ñu yërëmantewul ñi ñu féete kaw duñ ñu yërëm irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama da ngay da ngay da ngay yërëm ñi nga ñi nga yow ya len yilif ñi la yilif yërëm la bo yilimul ñi nga ñi nga yilif bo len yërëmul ñi la yilif duñ la yërëm suñu marché yi bo fi duggé spéculation bi fi nek ak njaay mu cher bi fi nek ak naxaate bi ci soppi luñu wara jaay rax ko def li wax lu dul deug di lorante suñu biir kenn xamul lu ci li gën a yàq suñu dund mettital ko loolu bokk na ci da ngay dem ci ay dëkk yoo xam ne ay pays riche lañu koy tuddee boo dee dundee fii cinquante mille boo fa demee vingt mille francs mën nga koo dundee te qualité de vie bi ngay am foofu doo ko am fii maanaam dund gi baaxul ba pare cher metti lool ñun ñu am ci responsabilité bu rëy rëy rëy état bi tamit war ci góor góorgóorlu ci loolu ndax metti dund gi day indi ay frustration ci nit ñi ndax xiif bi ak coono bu metti boobu nit ñi di ko dund day indi ay métit ak ay naqar ci seeni xol yoo xam ne bis bu ñu jekkee jekki rek mu explosé mën na taal réew mën na indi ay fitna léeg-léeg benn ceeñeer la ñuy xaar rek brin almet bu tàkk rek mu nekk explosion ndax day fekk ne nit ñi daa am colère bu ñu daan dajale ndax situation yu métti yi nekk kon fexe ba yëwanal dund nit ñi ak seen nekkin ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci dem beeg dikk bi ci defaral leen seen yoon yi defara leen seen dëkkuwaay ba ñu mën a dëkk ci seen jàmm am benn dal gi loolu lu am solo la nit ñi lu bari boo leen tegee ci condition yu mel noonu wallahi lu si bëri duñ dootuñ la sono sonal ci yenn yi yu bari mën nga fi nekk gouverner fii mais yu bari nit ñi dootuñ la ci sonal moo tax boo seetloo jamono yi fi socialiste si nekkee woon te dund gi yomboon ñooñu daanaka amuñu woon trop problème yi ñuy am léegi ndax dañ fi nekk yore nguur gi lu yàgg li ñu ko gënoon may mooy bokkoon na jamono yu dund dafa yomboon lo am da ngay dund dañ da am ventre plein nègre content bu bu gaay yi suuree rek c'est si c'est consort gogou après li ci des ñom du nek lu lu lu trop motax kon jema fexé yewonal dundu nit ñi mu bokkat ci timit ba légui yar jeunesse bi yar nit ñi def ci ñom xam-xam ak ak yar ak ay jikko yu baax ñaar yoyu bokku na ci yo xam da fay jur timit jam ak ak stabilité suñu rew gis nga nit ñi nga xamanteni bi jànguñu xamuñu du diiné du aduna ndax bu ma waxee jàng nekkul rek njàng tubaab mais jàng ci ñaari côté yépp nit ki ñu yar ko jàngal ko mu xam lu jaadu lu jaaduwul lu yàlla lu yàllul loolu bu bëree ci am réew dafay sécuriser réew ma dafay def jàmm mais bu bëree ñu jàngul ñoo xam ne xamuñu daanaka mënoo leen a wax lu ñu dégg ci émotionnel rek la ñuy dem ñooñu bu ñu constituer masse bi te dañuy wax ne ful ak masse du ñu xalaat bu dee ña nekk ca biir tamit duñu xalaat àndaat ci ful boo xam ne jëmmi ful bi ci boppam du xalaat loolu musiba la fitna la lu ne mën nañ koo def waaw ba tax na kon njàng mi ñu gën koo jox yitte njàng moo xam ne xam-xam dëgg la jàngal xale yi formé leen yar leen mu bokkaat ci tamit ba léegi tënku ci maandute ci séddale gi ñuy séddale li nga xamante ni mooy njariñu suñu suñu réew li fi nekk ci ay sañ-sañ ay àq ay yelleef ak alal mu am équité ci répartition bi niñ koy séddalee ñu teg ko ci kaw mandute bañ ko def yëfu yaa neex ndax yëfu yaa ma neex baaxul day avantage ñenn désavantage ña ca des mu créer ay frustration indi ay fissure ci biir société bi ñoo xamante ni suñu joxoñee rek lu ñu bëgg ñu defal leen ko koo xamante ni moom gis ne citoyen sénégalais la kenn gënu ko sonn ci réewam kenn yóbbulu ko dara ci réewam te lu mu soxla day yuuxu ba baatam dee kenn du ko dégg lu mu soxla kenn du ko faale lu mu bëgg du ko am lu ñuy séddale kenn du ko ci jox àqam sax bu ci bëggee jot day sonn kële toog fële moom dañ koy jox ba jox ko lu dul xam loolu baaxul ci réew da ngay gis yenn région yi ñu amee yenn frustration yi dem ba mën a dugg ci ay rébellion di wax naan dañuy séparé wu ak réew ma léeg-léeg li koy waral mooy sentir ni gisatuñ seen bopp ci yëf yi dañuy sedd ñeneen ñi di leen bàyyi kon bu ñu bëggee cohésion bi nationale bi ñu ñu sàmm ko sàmm jàmm ji bokk na ci tamit mooy séddale bi na tegu ci kaw maandute kenn ku nekk ñu jox ko ak xam ci réew mi mu bokkaat ci tamit ba léegi mooy ñi nga xam ne ñooy yëngatu di liggéey ci wàllu sécurité ñu tuddee force de défense et de sécurité ñu yar leen tàggat leen ci anam boo xamante ni dañuy def ci ñoom sens de responsabilité ci ñu xam seen liggéey nu mu nekkee lu sensible ci sàmm jàmm ci réew mi ñu xam ne ñoom ay surgay askan bi lañ fexe ba rattaxal seen digganteeg population bi li ma doon wax sànq ci fu mel États-Unis ki nga xam ne mooy nekk shérif bi mooy nekk chefu police bi population bi ñoo koy fal ñoo koy fal budget ñoom ñoo koy votel maanaam yow nga nekk commissaire ci quartier bi population bi ñooy tànn kii nekk seen commissaire ba noppi budget biñ koy attribuer di ko ko jox chaque chaque chaque année population bi ñoom ñooy daje ci seen municipalité yi discuter wax li police bi liggéey ak li mu liggéeyul dinañ leen dollil seen budget dinañ leen wàññil seen budget parce que criminalité bi bëri na te liggéeyoo leen dara defoo leen danga da nekk seen bureau yi rek di lekk ay donut léegi loolu bu amee ci diggante police ak ñi nga xam ne ñooy askan bi day mujj askan bi mujj daanaka mooy yilif police bi mais boo jëlee police dóor ko ci kaw askan nga xam ne policier bu jàppee nit di ko tuumaal wala mu koy bunn xatal amul fu mu ko mën a jooyee ci àdduna amul amul amul amuloo amuloo lenn lu mën a protéger ci ñoom xanaa rek mu am lu muy xool bañ laa sonal mais lu ko neex mën na la wax ne la moom nga def sonal la ci te amuloo lenn lenn loo mën a def moo tax ñoom bañ lañ ko ba seeni policier dañ leen di takkal ay cam body cam li ñu tuddee body cam boo xam ne dañ lay takkal benn caméra ci sa euh, poosu dënn boo xam ne boo defee intervention taal sa gyrophare oto rek day tàkk boo dee def intervention nëbb ci sa loxo wala nga fay son bi soo demee après da ngay am ay règles yooyu yooyu rendre dañ lay indil ay problème summi nañ fa ay policier alamaan fa police ci dal ci kaw nit fitnaal ko ñu dem après xool li nga xam ne moom la body cam am filmé ñu gis ne moom moo ko tooñ kooko day jóg dem porter plainte police ba léegi dëkk ba ci boppam dëkk ba police ba nekk ñoom ñooy jël alal ju bëri jox ko ko ndàmpaay lu mel noonu lañu ñu war a jéem a fexe indiwaat suñu réew bu ko defee ñu xam ne joxuñu ay nit ay tenue pour ñu nekk ay superman yoo xam ne dañ fi nekk di def lu leen neex mais suñuy moroom ñun suñuy rakk ak suñuy doom lañ jël jox leen ay tenue pour ñu ñëw protéger dëkk bi protéger réew mi sàmm boo ko defee loolu nekk loo xam ne suñu digganteeg ñoom la dañuy sax jàppalanteeg ñoom ci liggéey bi loolu foog ñu delloo si waat yu mel noonu ak ñu nekk ci justice bi ñu wàññi seen arrogance xam ne ay doomu aadama lañ ay nit lañ comme ñun ci kër yi lañuy ñuy génne jàng jóge université ñu fal leen ñu nekk ay magistrat ñu ñu delloo si wat ci ñoom ñoom ci loo loolu ci ñoom kon yar ñooñu nga xam ne ñoom la ñuy formé nga xam ne dañuy occuper ay fonctions yoo xam ne essentiel la ci wàllu sàmm jàmm réew foog ñu xoolaat seen i formation xam ne du formation dooraate ak mbugal nit ak sanctionné nit ak toroxal nit ñu xam ne loolu du seen liggéey dañuy liggéey pour sàmm seen askan sàmm seen réew sàmm seen jàmmi réew loolu mooy seen liggéey ñu bàyyi xel ci loolu mu bokkaat ci ba léegi mooy amaat maandu te tamit ci li ñuy appliqué ci ay pen ak ay loi la ca aju ñu am ci maandu te ci diggante askan wi mu bañ a nekk loo xamante ni yëfi yaa neex lay doon ndax bu fekkente ni loolu am na mooy tax nit ñi xaritoo waat ak seeni institution sinon bu loolu amulee relation bi dafay nekk lu conflictuel nit ñi dootuñu amati confiance seen diggante ak justice seen digganteeg police seen digganteeg nangam dootoo leen wóolu ndax dangay ngay jàpp ne même buñ la tooñee nga dem fa sax soo moytuwul yow mujj gi tooñ bi ci sa kaw lay mujj tegu te loolu baaxul comme tàkkusaan seen kër jot na ñu xaw ak accéléré tuuti yonente bi alayhi salaatu li mu doon wax ne moo alak ñi jiitu woon mooy ku néew doole bu sàccee ñu jàpp dagg loxoom teg ko daan koo xamante ni bii ku am baat la ca ñoom bu sàccee wala ma def lu mu warta def ñu daal di koy nëpp nëppal mu ne loolu moo alagoon ñi leen jiitu alayhi salaatu wasalaam mu bokkaat tamit ba léegi xeex li nga xam ne mooy guerre corruption gis nga guerre bu tasaaroo ci réew bokk na ci gën a menacé stabilité ak sécurité wu réew ndax réew la moo xam ne lu ne nit mën na ko faa def lépp lu ñuy tere rek am na ñoo xam ne faale ko ndax jàpp nañ ne am na ko ñu mën a ger ba mu bàyyi leen ñu def ko lu ñuy bañ ko ko dugal ci réew ma dina fa dugg ndax am na koo xam ne jàpp na ne am na ko mën a ger ba dugal ko fa waxuma la sax loolu mais même loo xamante ni lu aju ci wàllu gouvernement la nekk loo xamante ni bi lu sensible la ci ay secret d'état nit mën na ko jël jaay ko beneen askan wala mu jaay ko ñeneen te loolu mooy wàllu domaine intelligence loolu mooy indi li ñu tuddee contre espionnage kon guerre musiba la ci réew ñu xeex ko tamit bu baax a baax ci yar nit ñi ci ñu moytandiku lépp loo xamante ni ger la comme na ko lislaam xeexee laana allahu rashi wal murtashi mu bokkaat ci tamit ba léegi jàppalante ci lu baax te loolu su koy wax sama mbokk yi may déglu laay gën a waxal mu ñu jàppaat gën a góorgóorluwaat ci wàllu daawa ila allah yoonu lislaam rek mooy yoonu jàmm woote woowaat nit ñi ci lislaam woo nit ñi ci yaru lislaam ak ci valeuru lislaam ndax day yàgg day yàgg valeur yooyu rek moo mën a defaraat nit ñi defaraat seen nekkin yëwanal ko yeneen yoon yi ñuy làmbatu yépp ay fitna rek la jural doomu aadama yi système yi nga xam ne moom lañ jël ko instauré ko ci àdduna bi depuis bi mu commencé ak léegi mën nga ko tàmbalee ci dix-huitième siècle bi li mu rey ak li mu faagaagal ci doomu aadama amul benn civilisation bu ko mës a faagaagal ci doomu aadama te ñu ngi koy tagg di ko sacraliser di ko tuddee ay démocratie di wax di ko rafetal mais xoolal révolution yi mu fi indi ak guerre yi mu fi indi li ci dee ci doomu aadama ak li ci loru ci doomu aadama kenn xamul du mu toll benn système moo mën a sàmmal nit ñi seen jàmm fii ci ko suuf mooy système bu borom bi subhanahu wa taala di l'islam moom kase moo ko mën kon góor góorgóorluwaat ci woote ci lu baax tasaare njub bi nga xam ne mooy njubul islam bokkat na ci yooyu mooy li ñuy nome di ko joxe ci ay cër ci suñu réew mu nekk ci kaw yelleef bañ nekk ci affaire yaa ma neex bépp cër bu ñuy jox nit surtout poste yi nga xam ne yu stratégique la ñu jox ko nit ci kaw inna xayra man istajarta al qawiyul amin koo xam ne dafa boole nekk ku wóor ku maandu ci li muy def waaye tamit ku am compétence am savoir faire ci xam li muy def mën ko ñaari critères yooyu nekk ci moom ca loolu ñu koy jox ñu tappee ci loolu jariñu ci doomi réew mi ak doomi askan bi nga xam ne yàlla def na ci ñoom xam-xam expérience te yàlla xam na ne am nañ te bañ a def ko yëfi yaa ma neex ndax ci loolu lañuy ñuy mën a sàmmee suñu réew sàmm suñu alalu réew soqali suñu réew ndax dañuy xam ne responsabilité yi ci loxo yi mu tegu ay loxo yu wóor la wa illaa loolu bu fekkente ne amul tamit problème lay jur rek ci réew mi yonent bi alayhi salatu wasallam ida wusida al amru ila gayri ahlihi fantadir saa lii yàq àdduna yàq dund kaw suuf ba bisu penc di ñëw mooy bu ñu demee ba responsabilité yi ñu jox ko ñoo xam ne bu ñu leen ko joxee mu sànku bu ñu ko joxee mu nen xamal ne bisu penc léegi mu ñëw mu bokkaat ci tamit moytandiku wute suñu kéemtalaay kàttan moo xam utey diine la wala ute ci wàllu àdduna la lu ñu mën ci minimiser ko ñu moytu ko moo gën ndax day jur nooneel ndax doomu aadama yi na si ñoo xam ne ñeme bëgguñu adversité am na ci nit ñi ñoo xam ne boo wuteeg ñoom gis-gis rek te la ngay wax xëy na wala la nga jàpp nekk loo xam ne lu dëgër la ñu noonu la moo tax léeg-léeg ci wàllu démocratie yi ñuy wax nii surtout ñun africains yi dañuy wax naan adversité ak yi ci aju ci wàllu parti yeeg yooyu mais seetlu leen li mu ñu jural rek ci ay fitna bi ñu amee suñu indépendance ak léegi ndax xiiroo ŋaayoo ak jàppante lay jur yoo xamante ni li muy jur ci fitna ak li mu yàq suñu réew yi kenn xamul nu mu toll kon wuute ni ñu ko gën a mën a moytu moo gën ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa doon wax ne laa taxtalifu fa taxtalifa qulubukum moytandiku leen di wute ci biti ndax wuute ci biti dafay jur wuuteeg xol au début da ngeen di wute di toog di debatre di kii ba mu yàgg mujj gi xol yi jóg dënn yi jóg mu mujj nekk nooneel bu nooneel amee ku ne di xool nu mu faagaagalee moroomam lolu motax luñu gëna mëna gën a moytandiku wute yi suñu kéemtalaay kàttan bu fekke wute mën ta ñak timit ndax yàlla non la bindé doomu adama ne wala yazaluna muxtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika lidalika moy nit ñi yàlla da leen bind ci wuté ndax seen xalaat ak seen gis-gis bokul te lolu day jéxatal ci seen prise de décision kon nit ñi dañuy wute ñu fexe ba suñu wute ñu géré ko ci façon bo xamanteni bi bu pacifique la dañ koy waxtané xol nuñu mëna def ba bokku penc mi te wuté bi duñu yóbbu ci ak nonel kon ñi privilégier lu mel nonu wayn janahu lis salmi fajnah laha wa tawakkal ala allah innamal mu'minuna ixwatun fa bayna akhawaykum mana privilégier li nga xamanteni bi moy waxtan yaronte bi alayhi salatu salaam amon na ay non yu ko nonu won jël fitna diko ko jëmale ci mom waye sa bo amé occasion mëna a toog ak ñoom waxtaan da koy def te saa bu toogeek ñoom lépp lu mu leen mën a nangul ba jàmm am da ko doon def loolu moo jur sulxul xudaybiya keroog lu mu fa nanguwul amul dem na bañ na ko rasulullah sax doo ko bind ci sa tur mu ne d'accord na donte maay yonent yàlla donte gëmoo leen ma itam maay yonent yàlla waaye effacel bul bind ku dem bay nangu loolu loolu mooy wane ne kon foog léeg-léeg loolu am nit ki bàyyi dara nangoo wàcce dënnam nangoo yaatal dënnam mën a supporter nit ki wuteek moom gis-gis xam ne ñoom ñaar ñëpp bokk li ñu bëgg xëy na dañoo wute ci niñ ko gisee nañu waxtaan waaye bañ a yaakaar ni wute nga man li nga bëgg wala li nga gis rek kon dama laa war a faagaagal loolu baaxul fitna rek lay jur amul njariñ mu bokkaat ci timit ba léegi transition yi ñuy wax ci wàllu nguur comme nee nañ ci système démocratique lañ nekk kii day yéeg wàcc keneen yéeg ñu fexe ba loolu ñu sécuriser ko ndax ba léegi maîtriser wuñ ko Afrique li fiy tàkk ci ay jëye lu ci ëpp wàccal ma yéeg la wàccal ma yéeg fitna ju rëy lay jur ci suñu réew yi saa buñ demee ba nguur gi war a soppi ay loxo jóge ci kii dem ci kii li muy taal ci ay réew kenn xamul nu mu toll kon moo tax foog loolu ñu xoolaat nuñ ko nuñ ko sécuriser ba teg ko ci yoon yoo xamante ni kenn dootu ci mën a sukkandiku di indi ay fitna ci suñu réew yi donte loolu liggéey bu rëy rëy la liggéey bu rëy la laaj mais lu jara lu jara jàngat xool ko la mu bokkaat ci tamit ba léegi fitna yi di am ak jàppante yi di am ci wàllu ay politique ak la ci jëm ñu bañ di jëfandikoo diine di ko ci dugal ci anam boo xam ne dañ koy jëfandikoo pas dañ koy jël ngir diine régler problème yi mais dañ koy jël ngir dugal ci affaire par parloo ci wàllu diine di am ñooy dëkkale fii ak ñooy féetale fii ak ñooy bëgg a jariñoo ak yu ci jëm wóorul ndax buñ ci dugalee diine ci anam boobu day daal di jël yeneen proportion wala ñu jël affaire xeet ak affaire askan di ko ci dugal wóorul comme li daloon Rwanda yi ginnaaw bi tamit centre Afrique day mujj yóbbu crise yi ci ay niveau yoo xam ne yu garaaw lay doon ndax da ngay dresser population bi les uns contre les autres mu mujj nekk ay problème de règlement de compte mujj dem ba soppali ko ay guerre civile nekk ay conflit armé yoo xam ne nit ñi ñooy mujj di jaamarloo ci seen biir moo tax yooyu ay problème yu garaaw la yoo xam ne yu jar a moytu la kenn du ko foowee mu bokkaat ba léegi mooy delluwaay ci diine mun ta ñàkk ci réew ay nit ñu ñuy dellu ci ñoom ci seen wàllu diine wala seen tolluwaay ci askan bi loolu tamit mun ta ñàkk ay boroomi xam-xam dafa war a nekk tamit ci seen xam-xam ci seen bëggal askan bi lu baax pas ne ñoom seen boppaleen ñor ak seen boppaleen yitteel déedéet mais ñooñu dañoo war a nekk nit ñoo xam ne ay boroomi xam-xam boroomi expérience lañuy doon yu mag. ñu leen di déglu ci ni réew mi di doxee bu problème amee ñu jóg sol seen dàll mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñoo ñu déglu leen ak respe ndax seen xam-xam mate na ko seen tolluwaay ak seen dayoo ci askan bi mate na ko seen bëgg lu baax ak seen fulla mate na ko nekkul ne da ngay ñëw toog boo jógee fa nga toogoon ñu faxas ko déedéet mais nit lay doon koo xam ne ku ñu ku ñu jox respe lay doon l'islam dafa am ñooñ ñu leen di tuddee ulul amr ñoom la yàlla wax ne wa ida jaahum amrun wa ida jaahum amrun min al amni aw al xawfi adaau bihi walaw radduhu ila rasuli wa ila uli l amri minhum la alimahu alladina yastanbituunahu minhum walawla fadlu llahi alaykum wa rahmatuhu la tabaatum alcheytaana illa qalila mooy kuréel googu nga xam ne ay boroomi xam-xam la ñuy tuddee ñu leen tuddee ahlul xalli wal aqd ñooñu faw tamit ci suñu réew yi ñu leen ci bàyyi xel te seen désigné bu ñu leen di désigné bañ a nekk yëfu yaa ma neex wala yëfu julli juddu wala yëfu fii la bokk mais mu nekk ne nit ki da koy mate ngir mën a jouer rôle boobu mën a canaliser nit ñi wax ak ñoom waaye mën a wax ak tamit ñi nga xamante ne ñooy jiite yi nga xam ne moom la ñuy mujjee mooy waxkat yi nga xamante ne bi ñooy nekk di wax ci jamonoy fitna ñu jéem leen a maîtriser ndax am na ñoo xam ni jamonoy fitna ci la seen affaire di dox ndax ay businessman lañ ay affairiste lañ yoo xam ni bu conflit amee ñu jóg di def trafic d'influence di dugg di dugg a génn seen affaire baax ñu leen di dégg ñuy génn di wax di nangam sàngam fekk ne sax waxuñu pour defar ak indi jàmm mais dañuy wax pour ñoom luy baaxal seen affaire moo tax jàmm am yëfi ne teg arrangé wu leen dañuy bëgg yëfi di gën a jax ñoñu timit ñu xam leen bu baaxa baax ndax sa bu démé ba jàmm di bagam am ñu jaar ci suuf am dem ci benen côté bi waxtaan ak ñom tital leen ne leen waji mi ngi lay fexel waji mi ngi lay préparé moy tundikul exemple bima ci joxe pour baña guddal sax mais fokk ma joxe ko maarakatul jamal aisha radiyallahu anha dafa génn ànd ak zubayr ànd ak talha radiyallahu anhum ñu jóge màkka ne dañuy dem Irak lijjanti ji ñan ñoo rey Ousmane ndax rey giñ ko rey metti na trop Madina lañ ko reyee waaye ñu ko rey ña nga Irak ñu dem ne dañuy lijjanti ji loolu fekk nit ñi jaayante nañoo ak Madina Ali ibn Abi Talib mu war faa jóge ñëw Irak ñoom ñu dem foofu waxtaan seen biir ne léegi dañuy dem lijjanti ji ñan ñoo ko rey ñu xam ñan lañ ñu teg ci ñoom yoon ndax lii ëpp na te mënuñu ko seetaan te ñun ñoo war a jug dox ci loolu biñ demee foofu Ali ibn Abi Talib yónni ñoom ay ndaw laaj leen lan moo leen tax a jóg ñu xamal leen seen jubluwaay na jàmm rek a leen tax a jóg te comme jullit ñi jaayante nañu ak moom ñoom pare nañ pour jaayante moom waaye na jóg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef bi mu jox leen ay garantie ñu waxtaan ba juboo ci kaw cadre boobu ba kon léegi jaratul ñuy jàppante alhamdulillah ñaari kuréel yi ñaari kuréel yi daje ci bërëb ñu war a fanaan ba suba bu ñu xëyee ñu xool après nan la ñuy lijjantee ñi nga xam ne ñoo defoon ñaawteef boobu gaa yi ko defoon ñi ngi infiltré wu kuréelu Ali ibn Abi Talib ñu waxtaan ci seen biir ci guddi gi ne Ali ibn Abi Talib daf ñoo bëgg a jaay déglu leen wax ji bu baax ci ci biir groupe lañ nekk wan ko ne moom lañ àndal te ñoom ñoo def ñaawteef boobu mais bëgg nañ lu leen protéger pour bañ teg yoon ci seen kaw ñu ne suñu waay jii daf ñoo nar a jaay ndax waxtaan na ak gaa yi te li mu waxtaan ak ñoom mooy lan mooy après ñun ñii lay jël sacrifice ñu jaay ñu kon buñ ko seetaan. ci guddi gi ñu xaar ba nit ñi toog jullit ñi tëdd ñu jékki-jékki jul jël ñaari commando jox leen ay arm ñi dem dal kuréel gi jóge màkk di kuréelu Aïcha radiyallahu anha dal seen kaw attaqué leen ñi ci des dem dal ci kuréelu Ali ibn Abi Talib attaqué leen kuréel gu nekk yaakaar ni beneen kuréel bi moo la attaqué ñu jug dal di tàmbalee xeex ci seen biir xeex boobu jur ay junni junni doomu aadama yu ci faatu ci jullit ñi ci lañ rey talxa ak Zubair di bokk ci kàngam yi gënoon mag ci ñu àndoon ak yonente bi alayhi salaatu loolu di la wan ne la kon fitna léeg-léeg ñay nekk ci biir système bi sax te ragal ne bu yëf amee jàmm jàmm am ñoom seen affaire yàqu léeg-léeg ñooy nekk di dox ci biir di def lobbying pour bañ jàmm am moo tax kon ñooñu foog ñu contrôler leen bu baax a baax bi ñuy mujjee mooy dellu ci yàlla moom laa mujjee ndax moom moo ndar képp lépp moo ne yàlla rek moo yor jàmm ak loo mën a sabab lu ñu wax fi ay sabab la am na yu ñu bàyyi loo mën a sabablu sabablu sabablu bu ci yàlla àndul jàmm du am kon dellu ci yàlla delluwin boo xam ne bu set la delluwin boo xam ne bu dëggu la ñaan ko yàlla yàlla defal ñu jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm hada wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain